bi yëngu-yëngu ba dalee pool woo taalibe ya fa moom dooleel leen bi mu ko defee mu tàggoo ak ñoom jóge fa dellu diiwaanu maseduwaan noonu mu jaar ca barab yooyu di dooleel nit ñi ak wax yu bari ba noppi mu dem réewu Grèce toog fa ñetti weer waaye bi mu nekkee ci kaw tànki dugg gaal jëm diiwaanu Siri te yawut yi lalal ko pexe fas yéene dellu jaare maseduwaan booba nag ñi ñoo ànd ak moom sopater doomu pirus mi dëkk bere aristark ak segond ñi dëkk tesalonik gayus mi dëkk derb ak timote te it tisik ak trofim ñi dëkk asi ñooñu nag jiitu dinu nekk dëkku trowaas waaye naka nun gannaaw màggalu yawut gañuy wax mburu ya amul lawiir ñu dugg gaal ci filip def ci juróomi fan fekk ci leen trowaas nu am fa juróom ñaari fan ca bés bu jëkk ca bés ga booloo nanu ngir damu mburu ma te pool mi bëggoon a dem ca ëllëg sa di diisoo ak ñoom te waxtaanam law ba ci xaaju guddi ca néeg bu kawe ba ñu booloo nag amoon na fa làmp yu bari noonu waxambaane wu tudd ëtikus te toog ca palanteer ba gëmmentu bay jayaxu bi pool di gën yaatal waxtaanam nag nelaw daldi ko jël mu xawee ko ci ñetteelu taax ma ñu yëkkati ko fekk mu dee waaye pool wàcc daldi sëgg ci kawam roof ko loxoom ne leen bàyyi jooy yi mu ngi dund noonu mu yéegaat damu mburu ma lekk ba noppi delluwaat ci waxtaanam di ko yaatal ba ca njël door tàggoo naka waxambaane wa ñu indi ko muy dund ba seen xol sedd guy nun nag ñu jiitu dugg gaal jëm asos fanu pool santoon ñu jële ko fa fekk moom fas na yéene dox ba agsi fa noonu mu fekk sunu ci asos ñu jël ko ca gaal ga demmiti leen ginnaaw loolu gaal ga jóge fa nu agsi ca ëllëg sa janook dunu kiyos bés ba ca tegu nag ñu jàll ba samos te ñetteelu fan ba nu àgg mile ndaxte pool fasoon na yéene teggi efes ngir baña yàgg ci diwaanu asi mu ngi doon gaawantu ngir màggal gi ñuy wax pantekot fekk ko yerusalem mu yónnee ca efes ngir woo njiiti mbooloom ñi gëm bi ñu ñëwee mu ne leen yéen xam ngeen bu baax ni ma doon doxale diirub sama ngan gépp ci seen biir li dale ci bés bi ma jëkkee teg tànk ci asi ba tey jaamu naa boroom bi ci woyof gu mat ak ay rongoñ dëkku ay nattu yu may pexe yawut yi indil xam ngeen ne musuma leen a nëbb dara lu leen di jariñ di leen jàngal ci kanamu ñépp ak ca kër ya dénk naa yawut yi ak grek gi ne leen ñu tuub seeni bàkkaar ba waññeeku ci yàlla te gëm sunu boroom yeesu léegi maa ngi nii di dem yerusalem ci li ma xelu yàlla mi xiirtal te xawma lu ma fay dal xam naa rekk ne ci dëkkoo dëkk xel mu sell mi xamal na ma ni ay buum ak i metit ñu ngi may nekk waaye sama bakkan soxaluma su fekkee bay naa sama sas ba matal liggéey bi ma borom bi dénk maanaam ma seedeel ci ñépp xabaar bu baax bi ëmb yiwu yàlla fii mu ne nag xam naa ne dootu leen gis sama kanam yéen ñépp ñi ma jaaroon ci seen biir di yégle nguuru yàlla moo tax may dëggal tey jii ne wàccoo naa ak yéen ñépp bés pénc ndaxte ñeebluwuma leen ci di leen xamal lépp li yàlla digle wattu nag seen bopp te wotu coggal jépp di leen xel mu sell mi def sàmm ngeen sàmm mbooloo mi yàlla jotal boppam ak deretu doomam xam naa ni bu ma leen wonee gannaaw bukki yu soxor ñu tàbbi ci coggal ji te duñu ci lu kenn ay nit dinañu jóg ci seen biir sax di wax luy sànke ngir sàkku ay taalibe foog leen nag di fàttaliku ne diirub ñetti at guddi ak bëccëg musuma noppi di leen artu kenn ku nekk ci yéen ak ay rongoñ léegi nag maa ngi leen di dénk borom bi moom ak kàddu yiwam gi leen mën a dëgëral te may leen cër ci biir gaay yàlla yu sell yépp namuma xaalisu kenn mbaa wurusam mbaa koddaayam xam ngeen ni faj naa samay soxla ak soxlaay ni ànd ak man ci sama loxo yii ci lépp won naa leen royukaay ci li ñu war a dimbali ñi néew doole te fàttaliku li yeesu borom bi wax moom ci boppam ne joxe moo gën a barkeel nangu bi mu waxee loolu mu sukk ak ñoom ñépp ñaan ci yàlla te ñépp jooy bu metti di laxasu ci baatu pool fóon ko bu baax li leen gën a teg aw tiis mooy li mu leen wax dootu leen gis sama kanam noonu ñu gunge ko ba ca gaal ga